l'année prochaine coalition ngeen di demee nag est que teelul waaw non doo xaar ba ñu waxtaan nag seen coalition ñoom Idrissa yow yaa ko wax léegi nii waaw ak ñeneen ñi nekk ci biir mais je suis candidat à la ciy liggéey waa ngi wax boo demee laaj xam ne ñu maa réglé candidat mais boo teelee man influencé wu ñi ma ñi nga xamante ne yaakaar nañ ni war naa mën a ànd ak ñoom ñu liggéey njëkk wax maa ngi leen tàllal loxo pour ñu ñëw liggéey ñi nga xam ne jàpp nañ ni aussi am nañ projet boo xam ne mën nañ demal seen bopp am nañ liberté responsabilité dama seen bopp. mais man ci li may liggéey laa lay wax. ne la j'ai décidé de construire une plateforme politique de au niveau local pour que li fa nekk nii ñu changé ko parce que li fa nekk ni doyul population bi doyu ma man te wànq koo xam nañ ko donc loolu mooy li ma tax a yëkkati attention te man dama jàpp ne maanaam euh, responsabilité bu mag la parce que euh, man Ameth wax naa ko waa Ngekox am na ñu ma ko wax nee naa leen man. Euh, Euh, bu ñu jëlee responsabilité ne dañuy dañuy jël mair bi mais te am ci yéene ne dañoo bëgg a defar xalaatuñu jël xaalisu mairie bi xalaatuñu ko jomb naa ko man xalaatuma utiliser la mairie man pour sama propre intérêt su ma ko naree def comme ma ma ma xoolal ma ma ma bañ a nekk candidat bañ bañ jël mairie bi mais jàpp naa ni loolu suñ koy def mais coono la ci ñun parce que maire yi nii lan la. état bi jox leen ay ay coono la rek ay coono rek des fois nga bëgg a nekk maire sax. sa sa benn jabar wala sa keneen ne la mais attends ñun kat doo am vie de kii donc am na ñenn ñoo xam option kenn mënul fexe bañ nekk candidat maire. il préfère dem dund seen dund def seen société. jàpp seen jàpp def mais xeexu principe ak jaamu ci yàlla aussi attention parce que yàlla mooy dëgg. Hmm, d'accord donc ëllëg lépp loo xam ne na ci commune bi. Hmm. ñu doxal dëgg. lépp loo xam ne jàpp nañ ni war nañ ko mën a indi pour que population yi mën a am ndox mën a am courant mën a am hôpital mën a am yooyu ñu dox ci mais xalaatuñu benn yoon. Euh, maanaam di utiliser dëkk bi pour suñuy propre intérêt pour suñu